وجهت وجهي لمن تكريم بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريم بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي liman taqi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëriñ Bàcc Jóob mu ngi leen di nuyu ca di leen sant di jiital ci nuyoo bi sëriñ bii nga xam ne moo fi teew ginnaaw bi ñu ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa xalifa général des mourides mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal jullit ñépp nee na mi ngi sant Serigne Mor Diagne. nee na mi ngi koy nuyu ca di ko siyaare. nee na mi ngi koy dalal jàmm. nee na mi ngi koy wax marhaban ahlan wa sahlan. nee na mi ngi koy wax na wàcc nga ci sa kër. nee na nga wàcc nga ci dëkk bi yépp it. nee seex mii suñu rakk la. waaye nee na mooy dëkk bi yépp nee na kon nee na mi ngi lay ñaanal fan wu gudd yow mi nga xam ne yaa fi ñëw ak ñi nga àndal ñëpp nee na mi ngi ñaanal itam seex ak waa dëkk bi yëpp nee na muy rakkam joo xam ne nee na nee na rëkk ci ñun ca rëkkuñu nee na yàlla na seen fan gudd. yéen ñaar ñi nga xam ne dañoo jàppante kóllëre. te yàlla sàmmal leen seen kóllëre. nee na kóllëre da dañ koy laaj yomal xiyaam. nee na kon nag seex sa rakk la. sab taalibe la. yaakaar nan la yaakaar nan la ci. taxawul na ko bu baax. nee na boroom dëkk bi wax na li nga xam ne moom la soxla ci dëkk bi. nee na kon nag moom loola boroom dëkk bi wax na la war a wax. nee na kon seex lan lay dénk. ak ay rakkam. ak mboolem waa dëkk bi. nee na sëñ Moor. kullu mursalun. koo xam ne damay bëgg wax ne képp ku baax rek yàlla la yónni. nee na day bëgg wax na képp koo xam ne ku baax la rek yàlla moo la yónni. dafa gis moom sëñ Modou nee na dafa gis sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ Modou Fati Xari. dafa ko jub moom sëñ Mor nee na da koo jub moom sëñ Mor mii. ak seegul ci moom. ak mu ne kii de fan tibbale gaa yu baax yi lañ ko tibbale. nee na ca agseegul ci sëñ Mor mi. ca agseegul ci nee na ca agseegul ci sëñ Cheikh. kon kon nag. nee na kon nag. sëñ Mor. na sëñ Mor. xam nan la. xam nan la. yëkkatiku woo. yëkkatiku woo. sa bopp. waaye ku yàlla yëkkati nga jóg. ku yàlla yëkkati nga jóg. kon na nga nekk ca kaw. kon nekk ca kaw. nee na ñi ngi siyaare sëriñ ba sëriñ Amar Diagne ak sëñ Njaga ak mbokk yan nekkal njaañ yëpp tànk yuñ fi dox la nee na tànk yoo xam ne yuñ fi yàgg dox la sëñ Alaaji Mbay Diagne sëñ Alaaji Mbay jaañ daana ñëw ci kër baayam nee na daana ñëw ci kër baayam kër Moor Njaay Jóob kër Moor Njaay Jóob daana fi war a wàcc. daana fi war a wàcc. daana fi faral a wàcc. daana fi faral a wàcc. dëkk bi yëpp ñëw di ko fekk. dëkk bi yëpp ñëw di ko fi fekk. te Mor Ndiaye Diop mooy mooy Modou mi jur Cheikh mii. nee na Mor Ndiaye Diop mooy Modou Diop mi jur Cheikh Mbacke mii. kon tànk yi ngay dox. nee na kon tànk yi ngay dox. xàll la wuñ la xàllaloon. xàll la wuñ la xàllaloon. kon yal na ko yàgg a kon yal na nga ko yàgg dox. di ko dox fépp. di ko dox fépp. foo jaar rek. na ca nee na fépp foo jaar rek. yàlla na mokk yàlla na ko bëggee ni ko bëggee. lislaam dong la tax lislaam la tax a jóg. bu nu mënoon di way na waa waa waa Madinatul Munawwara a way di wa waye Seydina bañ seenee Seydina Muhammad. tala al badru nee na tala tala al badru weeru badar waa ngi fekk di ñëw jëm si ci ñun nee na weeru badar waa nga fekk jëm si ci ñun nee na buñ ko mënoon a way kon noonu lan lay teeroo nee na kon bég nañ bu baax nee na wax ji matul guddal dox nga tànk yu rafet dox nga tànk yu rafet yàlla na nga ko yàgg a dox foo jaar itam yàlla nañ la topp ñu toppe woon yonent bi ni ñu toppe woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jërëjëf nee na bég nañ ba ñoo wax ñoo ngi ñaanal seex nag suñu rakk na ko suñu rakk la waxoon na ko junu rëkk ci ñun ci ñun te rëkkuñu te rëkkuñu yal na yàlla guddal na yàlla guddal aw fanam yal na yàlla yokk ay xéewalam na yàlla yokk ay xéewalam moo ki magam ak rakkam ki rakkam kon kon nag kàddu foofu lañ koy bàyyee. nee na suñu kàddu foofu lañ koy bàyyee. lu ñu yéene. lu ñu yéene. ak lu ñu xalaat. ak lu ñu xalaat. mënuñu ko wax lépp mënuñu ko wax lépp. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. ngi siyaara ñi nga àndal ñëpp. nee na ñi ngi siyaara ñi ne ànd ñi nga àndal ñëpp. xam na ne benn benn kàddu rek fi nekk. nee na xam na ne benn kàddu rek a fi nekk. kon yàlla na yàlla dolli sutura bu baax. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi ziyaar bokk yi fi teew yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen balu xaq te balu ñëpp aq te ñaan yàlla boo leen jéggal di yëkkati nuyoo boobu ak ziyaara boobu di ko teg ci loxol sunu baay bàcc Diop mu tegal ñu ko ci loxol Serigne Cheikh Diop mu tegal ñoo ko ci loxol sëriñ mbay mi nga xam ne moo ko teewal borom dëkk bi ñu jot li ma ko ci mbooleem njabootu Kabdou gépp ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew waaye di leen jot it nuyoo waa Njaañ gépp na ko tàmbalee ci sëriñ Amar jaañ ak sëriñ Jaga waaye ak délégation bu réy bi nga xam ne ñi ngi ànd ak man liggéeyu sëriñ Bamba bi fu ma jëm ñu gunge ma ba tey jii mujj ci muy nuyoo boo xam ne ak cant dañ koy gunge di wax ne yéen waa kabdu dañ leen di wax rek jërë ngeen jëfati ndax sunu maam Ibrahima Fall nee na woon jërëjëf moom gàtt na waaye ku jëful du ko dégg jërëjëfati nag ku yàgg a jëf moo koy dégg kon loolu wane na ne suñu diggante ak yéen ay jëf yàgg na fee dox lu jiitu jataay yii waaye jataay yi daa ñëw nag gën koo rafetal waaye lépp nag dañ koy sant Serigne Cheikh Diop ni ngeen ko waxe ndax dafa def li nga xam ne ab jullit bu rafet ab xol te jëfandikoo am xelam noona lay def te mooy la boroom xam-xam yi waxoon ne alxikmatu dallatul mumini xaysu ma wajadahu axada mooy njariñ ak lu baax nee na ab jullit moo ko moom fu mu ko fekk rek sañ na ko fab yóbbu te xam ne kenn gënu ko dalaayee kon seex noonu la def dafa gis lii xam ne mbooloo mii kat yàlla ak Sëriñ Tuubaa képp moo leen tax a jóg moo tax ñu ànd te yéen yàlla ak Sëriñ képp ngeen nekk fii moo leen tax a dajaloo kon di xool nag yàlla di leen romb ak Sëriñ Tuubaa di dem bokkul ci la waaye bi mu ko bi mu ko yootoo itam xam na ne yëfam la yoot ndax jafewu kon noonu dañ koy wax ci liggéey bi ne liggéey bi day sëriñ bi rek lañ ciy gis moom képpit moo nu ci bàyyi képp koo xam ne yëg nga ci sëriñ bi ba ñëw fekk suñu xameetuñu ak suñu bopp da xam ne kon yëf yi séer ko jàpp na nag doonoo ci dara it bàyyi ma mu la yaram gi jàll it loolu ñun du sunu gënaluñu waaye du sunu mbir ndax damay wax ne sëriñ Tuubaa day pëstéef moo cee tax a jariñu kon du ko ñuy campagnal waaye képp ku mu woo moom da ñëw suñ leen bàyyee ba ngeen ñëwal seen bopp nag saa bu leen gisee pëstéef Sëriñ Tuubaa gis ci yéen loolu mooy tax ngeen jariñu waaye su doon dañ fay ñëw nag neexul làmmiñ baax leen ngeen topp ñu su leen gisee damay jàpp ne dama leen a convaincre te su ngeen doxee ci gis leen li ngeen doon seet da ngeen dëppaat ànd boobu moo amul solo waaye ànd positif moo am solo dina ànd positif la noonu nag positif la ñuy dox moo tax képp ku ñu fekk ci positif rek suñu ànd yow dana mën a yàgg te suñu ànd ak yéen li ma leen waxoon tàmbaliwul tey tàmbaliwul ci jotaay yi ndax dipp ñu ñëw Tilmaxa def fi daara alxuraan ak tey ji suñu diggante ak yéen mi ngi dox lépp ñuy nekk ci tool sëñ Tuubaa lépp lu fi defal sëñ Tuubaa loolu yéen ngi ci ànd ak ñoom kon jaadu na ngeen dugg suñu biir ñu dugg seen biir loolu nag ndokk bi ñu ko sëriñ bi dafa lalee boppam kon noo ngi leen sant noo leen di gërëm waaye saa buñ santee seex danañ sant waa Kabdu ndax seex lu mu bëgg-bëgg lu baax su fi nekkutoon nag ñu ko gën a bëgg boo ko liggéeyantee du sotti mbaa bu ñëwee duñ ko ko téyel waaye fekk na ñoo xam ne nag li muy bëgg-bëgg lu baax ñoo ko ko gën a bëgg moo tax bi mu ko jàppale nañ ko ci kon nag ñu ngi leen di xamal ne sëriñ bi xamul ku njëkk a ak ku mujj a jébbalu ab liggéey itam xamul ku ci jiitu ak ku ci mujj ku ci gën a jàmbaar rek la xam bëri na ñu jiitu ay nit ci sëñ bi te ñoom mujj ñëw dañ ci jël ñoom jëluñ ko fa kon sëñ bi jëf lañuy ñuy jariñoo ci moom kon sunu ànd bi ñu ngi leen di sàkku ci yéen na nekk ay jëf waaye bu nekk ay wax waxtu bu ngeen demee ba gis ci noonu lu dul sëñ bi nag bu leen sax xaar bu dee suba bu leen fa yend bu dee bu leen fanaan teel leen ci ak génn ndax sëñ bi lañ woote moom lañ leen wan te defe naa ne loolu moom du am kon noo ngi san sant jataay yii xëy na jataay bi xat na gàtt na waaye bëri na loo defe na daa gàtt te fekk gudd na bëri na loo defe ne daa xat te fekk na yaatu na bëri na lu yaatu lu nuru lu yaatu te fekk xat na seen jataay bii day xatut gàttu kon nag ñoo ngi leen di ñaanal Sëriñ Tuubaa defal leen tawféex te defal na ko di ñaanal sunu baay bàcc jot mii nag nga xam ne lislaam képp ko ñor yàlla guddal aw fanam wéral ay cëram ndax jataayam bii boo ko gisee xam na lu baax la ndax ay sëtam rek ñoo fa nekk ak doomam waaye yàlla li mu fi gis ak sëñ bi moo tax fi mu toll nii buñ fi doon fanaan dafay nekk ak ñoom kon ndax loolu lay xeeñ mag mu baax loolu nga koy xamee kon mag mu mel noonu nag képp ku ko am da koy ñaanal yàlla kon këbdu ñu ngi leen xamal ne ñun ñoo leen deseel waaye yéen deseelatu leen ñu yi woo xam ne làmboo nañ ko nag yàlla na fi yàlla tasaare ñu ngi leen soññ nag ci bis bi nga xam ne moom la ñu waajal muy ajjuma ca guddi nga xam ne sëriñ am sa toom sëriñ sëriñ am na yéen ñëw fi ànd ak ñun dundi gudd dundal guddi googu ci xasida noo ngi ñaan képp ku ko mën nga ñëw ànd koog ñun bu ñu xëyee suba nag samedi ba moom mooy bis la sant sëriñ Tuubaa képp lañ ci fas ci ay jëf ak ci ay wax ñëw ànd koog yéen ba jant sox ñu dem waajal waat ko ba déwén loolu moo waral suñu jotaay yi moo waral suñu tournée yi kon ñu ngi ciy soñ ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm buñ sa ngeen kàddu yi dana gën a yaatu waaye li ñuy xaar suñu kanam moo tax waaye nan ñaan yàlla ñu fekk waat ko déwén ba nga xam ne bu ñuy jóg këb doon ñu tax a jóg suñu jógee këb dañu dañ leeroon njaañ su boobaa lépp luñ bëgg mu xaj ci dana ci xaj jërë ngeen jëf maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر بصيبا